alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi waxdahu alhamdulilahi xaq xamdihi mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu asalaamualeykum xaali Ousmane Gueye waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi zil ijaadi wal qidami mumiddina bi wujudi lbadri zil qadami summa salaatu wa taslimun yafuuqu ala miskin wa randin ala zil fadli wal qidami wa alihi almuhtadina alxiirati alkurama المؤتم سيرة المختار والقدم ما أرعد الرعد والورقاء تنحب من هديلها وجرى دمع من القلم salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam Chérif ñu ngi lay nuyu. jërëjëf nuyu mbooleem téléspectateur yi nga xam ni fa tabaarakallaahu ñu ngi seetaan seen émission bii di tamxarit. Mhm. waaye nuyu waat suñu gan yi nga xam ni ñoo dellu si waat. Mhm. bokk ak ñun émission bi fa tabaarakallaahu mhm. di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala comme ni ngeen ko gisee rek. saa su ne ngir respecté li nga xam ni moo am ci réew mi. dañuy wax ni dendandoo bi lu mu jege jege diggante nit ku ne ak moroomam naam un mètre. moo waral ñu jël rek. ñeenti nit ci côté bu nekk muy juróom-ñetti nit fa tabaarakallaahu nga xam ni toujours du bari ndax place yi bariwul. Mhm. ñoo it ñu teewaaleel ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des. ci Chérif bismillah jërëjëf di nuyu nuyuwaat ci euh, santaat bu baax seen assurance vie. Mhm. tabaarakallaahu du Faye ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo nekk ci société ba di fa tuur seen ñàq di rawale seen ngor di rawale seen diine jërë ngeen jëf ci taxawaay yi jëre ngeen jëf ci nu ngeen soutenir émission bi. fa tabaarakallaahu yàlla na leen yàlla fay yéen suñu sponsor leader yi waaye tamit di nuyu bu baax waa distingo tabaarakallaahu monsieur Kabongo ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di ndokkeel mbokku jullit yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lii ñuy def nii yëpp yàlla na ko yàlla yàlla def njaamu yàlla gi mu nangu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tafsir Abdourahmane di la jotol nuyoo El Hadj Mouhamadou Lamine Camara. Mhm. ak Serigne Fallou Mbacke transitaire suñu doomu ndey ñoom ñëpp. ñoom colonel Daouda Samb ñoom ñëpp ñu ngi lay jotal seen nuyoo ak seen ziyaara fa tabaarakallaahu xaali Ousmane démb ñu ngi toll woon nag ci Yuusufa nga war ñoo dugal nag ci histoire bi bismillah wa iz qaala li abi macha allahu ay dara fa tabaarakallaahu mbokk mi yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan émission bii di tam xarit mhm. comme ni ñu la ko diggee woon démb yàlla nee na yonent bi sallallahu alay wa sallam dinaa la ko nettali gën jaa rafeti nettali léegi nag bàyyil xel ni kon suñu borom tàmbali na koo nettali hmm. ki fekke nag di la nettali bokkul ak ki dégg di la nettali dëgg la te yàlla subhaanahu wa taala waxuma fekke waaye lépp moo ko amal hmm. kon ku mu nettali ab film hmm. film ba dina leer dëgg la suñu boroom nee na histoire yuusufa bàyyil xel iz qaala yuusufa li abihi yaa abati léegi diggante yuusufa ak papa ji am na lu xew nga ko suñu émission démb bi ñuy tëj shérif nee nga kër gu baree baree baree bari kër gaa ngay tàkk ñu ngay tojantey bopp problème a nga fay am li ci ëpp borom kër gi la ndax borom kër léeg-léeg yàlla dalay nattu ci sa biir njaboot nga am ci koo gën a bëgg saa boo wanee koo gën a bëgg ci sa biir njaboot ña ca des li ci ëpp dañuy noonu kooku mm-hmm. moo tax mënu la ñàkk gën a bëgg mënu la ñàkk waaye nag saa bu amee tamit nga fexe ba di ko nëbb loo man sa kem kàttan mhm. yuusufa ñëw na ci papaam dafa gént dafa tëdd gént bi muy gént lii fukki at ak ñaar la am douze ans mm, ndeysaan ñëw na ni papaam inni raaytu ahada achara kawkaban papa man dama gént ñoom yonent yi nag nee nañu bu ñu géntee ilham la yàlla moo leen di wan mhm. ndax wax yu ruya xitaabun kazal ilqaau min malakin maratibul waxyi laa tartab wala tahimi na ko maam Seydi Aj Maalik radiyallahu taala wax ñëw na ni ko papa man dama gént mu ne ko loo gént mu ne ko man dama gis fukki biddéew ak benn onze étoiles ñoom laa gis wa chamsa wal qamara ak jant bi ak weer wi gis naa leen ñu di ma sujjootal man yuusufa man daal papa biig bi ma tëddee dama gént ci guddi gi ma gis onze étoiles muy fukki biddéew ak benn ak jant bi ak weer wi ñoom ñépp ñu àndandoo sujjootal ma <laughs> mais papa ji yonent la te xam na gént gi lan lay firi pappa ji nee na ko doom yaa bu nayya yow doom sama la taqsus ruyaaka ala ixwatika sa gént gi bul ko nettali sa frère yi fa yakiidu laka kaydan ndax boo leen ko nettalee dinañ la fexeel lii nga gént pappa ji xam na ni bu ko waxee frère yi ndax moom xale la 12 ans la am. Mhm. te ñële ay mag lañu ñi mu bokkal baay papa ji xam na moom gént gi lu muy firi te xam na ni Yuusufa bu ko waxee frères yi frères yi dinañu xam gént gi lan la. Mhm. te su boobaa dinañ sacrifier Yuusufa. Mhm. papa ji ni Yuusufa lii nga gént doom bul ko wax say frères nëbbu ko ndaxte kat fa boo leen ko nettalee ya kii du la ka kay dan la fexeel am pexe. ah ndax seytaane nag. jël na lépp delloo ko ci seytaane ndax seytaane noonu la inna seytaana lil insaani aduwwu mubin seytaane daal noon bu biir ak noone la ci doomu aadama mhm. léegi nag tàmbali di ko firil gént gi yuusufa ni ko dama ko génn papa ji ni ko wa kadaalika nii nga ko génte fukki biddéew yi ak benn ak jant weeg weer wi di la sujjootal sa boroom noonu la la tànne mhm. ci sa biiri mbokk mhm. li nga gént mooy fukki biddéew yi ak benn mooy sa fukki frère yi ak benn wasam sa jant bi mooy man mii di sa papa walxamara weer wi mooy sa yaay ñun ñëpp dinañu àndandoo situation dina taxaw boo xam ni di nga doon chef boo xam ni ñun ñëpp dinañu àndandoo di la sujjootal kon nag doom nii nga ko génte nii ñu di la ànd di la maajal ñun ñëpp noonu la la yàlla tànne ci sa biiri mbokk nga doon kilifa mhm. kon nag bul ko nettali moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax naan seeni mbir bu ngeen bëggee mu seen aajo faju seen mbir àgg fa ngeen ko bëgg dee leen dimbali koo nëbbatu Chérif mm-hmm. kuy def loo baax le wax ko mm. wala loo baax le wane ko boo moytuwul rek la yàlla xam doy na ci lu wér wax naa ko ci émission yu baree baree bari nee naa leen wane wu gi ci àdduna bi fi ñu toll bari na problème yuy am moom la mm-hmm. lépp sutura amatul mm-hmm. da ngay déparé sa kër yaa nga jëm Tiwaawan def Facebook direct te am na ñoo xam ne làmmiñ jigu leen am na ñoo xam ne bët jigu leen ñuy commentaire oto ba di commentaire sañse bi nga naan maa ngi dugg Thiès hmm. maa ngi ci autoroute bi maa ngi daw sa quarante maa ngi daw cent cinquante oto bi nangam nangam maara day taali ba sa bopp te fekk dara rayu la lu dul làmmiñ hmm. dara rayu la lu dul hmm. bët ndax du ñépp la bët jig kon yuusufa alayhi salaam papaam nee na ko na nga nëbbatu sa ay frère ndax yàlla daf la tànn ci sa biiri mbokk <laughs> beneen biit mooy wa yuallimuka min taawilil ahadis yàlla it nag dina la xamal tamit firim gént yow xam-xam bi ne ci man man mii di sa papa nga xam ne lu ay gént bu ma ko waxee mën naa la koo firil wax la lan lay firi gént gi mm-hmm. traduire ko mm-hmm. noonu la la yàlla tànne ci sa biiri mbokk dangay doon ab yonent ci sa biiri freer am na ñu ni yeneen frère yi ay yonent lañ waaye loolu wérul mhm. li gën a wér mooy du ñu ay yonent parce que doxal nañu ak kiñaan goo xamante ni bu ñu doon ay yonent du ñu ko doxal ndax yonent maasuum lay doon yonent dañ koy ñoŋal ci def na naka sudul noonu du ko mën a def kon xanaa colonel Abdourahmane Dieye tontu baa ngi noonu <laughs> jërëjëf DG Douane kon nee na ko Yaquba nee na Yuusufa mhm. yàlla tànn na la xéewal gi mu defaloon sa maam Ibrahima defal ko samaam maam mi nga xam ni moo ma jur defal ma ko mbir mi bu jógee ci man wala boog ci yow lay ñëw yow yaayu doon mbir mi yàlla ni léegi nag loolu kon diggante yaaquuba la ak yuusufa léegi nag mbir am na laqad kaana fi yuusufa yàlla nee na nekk na ci yuusufa wa ixwati ak frère am yooyu ayatul lisaailiin am na ay kéemtaan am na ay màndarga yoo xamante ni ay jàngat comme li nga wax ni nañu jàngat fee yi ci am nañu jàngat li nga xamante ni moom lañ ci war a dégg bañ a topp neexaayu histoire bi yàlla ne na ay jàngat mu ngi ci pour laajkat yi is qaalu kera ba ne la yusufu wa axuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba te inna abana la fi dalalin mubin léegi yusufa dem na nettali na frère am yi li xew te papaam noonu na ko bu ko nettali mm-hmm. kon def na erreur. def na erreur xale la. yëfu xale ko jàpp. waaye déggal xale yi li ñu wax nga gis erreuru papa ji. ñoom frère yi ñoo daje. daan ni Yuusufa ak frère am bii nga xamante ni mooy rakkam ñoom ñaar ñi bokk yaay daal ahabbu ilaa abiida minna ñoom la suñu papa gën a bëgg. Mhm. suñ papa bu amee benn di ko maye yuusufa la koy may wala benyamin suñu papa bu dee dem yuusufa lay àndal wala benyamin suñu papa bu dee waxtaan yuusufa lay waxtaanal wala benyamin yuusufa lu ko neex bu def ci kër gi te papa du wax dara te ñun lu ñu def rek papa yuuxu yuusufa daal ak frère am bii dañu xamul ndax suñu papa dafa gën a bëgg seen yaay am déet waaye ñoom la suñu papa gën a bëgg mm-hmm. te wa nahnu usba ñun mbooloo lañu mm-hmm. parce que arab bu la waxee usba mooy groupe boo xamante ni fukk jëm kaw la mhm. ñu ni ñun usba lañu ñun dix personnes lañu yoo xam ne ñun ñëpp ay ponkal lañu am nañu kartan ñaari xale yu ndaw yi nga xam ne ay xiibon lañu suñu pàppa di leen leen jënde mhm. inna abana la fi dalalin mubin suñu pàppa daal dafa réer mhm. léegi ñu ni waaw ñoom ñoom ñoom neen ñoo toog Benyamin new fa Yusufa new fa ñoom fukk yi ñoo toog Yahuza moo présidé wala raw biil mooy taaw bi ñu ni waa léegi lu ciy pexe ñu ngi ci kër gi suñu papa Youssoufa la gën a bëgg ak frère am te ñun nooy magi xale yi waa léegi nan la def pour régler boobu problème mhm. kenn ni uqtulu Youssoufa rey leen Youssoufa <laughs> ku gisul yaay nàmp maam bu ngeen reyee Youssoufa comme ñun ñëpp moo ñu jur bu Youssoufa deewee bu ko gisatul dinañu bëgg kii ni déedéet awitrahuhu ardan exilier leen ko yóbbu leen ko exil mooy sànni génne leen ko réew mi mhm. rey ëpp na am ku ni ah, ah rey ëpp na waaye nañ ko génne réew mi mm-hmm. réew mii ñu nekk nga xam ni mooy Saam nañ ko fi jële ñu yóbbu ko beneen réew bu sori ñu mu dem na fi jóge dootul gisati papa papa dootu ko gis. du gis papa papa du ko gis. parce que papa moom bu gisul Youssoupha rek dinañu bëgg. Mm. ndax comme ñun ñëpp moo ñu jur. te problème bi mooy Youssoupha tere papa bëgguñu ndax moom la gën a bëgg. Mm-hmm. nañu fexe rek ba sacrifier Youssoupha. Mm-hmm. yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadi qawman salih ki wax loolu nag daal ni bu ñu ko rayee kii ni déedéet nañu ko génne réew mi ñu ne après ñu tuub bu ñu tuubee yàlla baal ñu ñu doonaat ay nit ñu yiw nit ñu sell la qaa'ilun minhum ka ca tane daal di wax nee nañu yahuuza la moo ni déet laa taqtulu yusufa bu leen rey yusufa bu leen ko rey rey ëpp na waaye wa alquuhu fi ghayaabaatil jubbi jël leen yusufa am na benn teen bu nekk ci àll bi ñu dem ñu sànni ko ca teen ba bu ñu ko dugalee ca biir teen ba yaltaqituhu baadu sayaarati am na ay ñuy dem luuma. ñu yor caravane di dem. ñu yor caravane di dem jërëjëf ay dara ci moo yi ndax bu doon olof bi laay firi sa sayaara njëgg lañ koy firi mais caravane buy dem nga xam ne ay luuma la dem dinañu ko for hmm. in kuntum faa'iliin bu ngeen ko tëmbalee ca teen ba am na benn teen bu nekk fële takk leen ko ci benn buum yoor ko ndax bu ngeen ko sànnee day dee mhm. yoor ko ci biir teen bi ba mu àgg ba mu leer leen ni àgg na ngeen dagg buum gi daal di ko fay bàyyi mhm. bu ko defee dina am caravane bu fa jaar bu ñu demee ñoom di root pour naan Yuusufa dina mën a génn te su boobaa dina du ñu ko rey te papa dootu ko gis léegi kon léegi lu ñu mujj d'accord mooy li Yahuuza wax mhm. mooy bu ñu ko rey waaye nañ ko sànni ca teen ba léegi problème bi lan moo des mooy nu ñuy def ba récupérer Youssoupha xale yi dem nañu. pour mën a ànd ak moom dem léegi d' accord nañu. Mhm. accord lu ñu d' accord ci teen bi la jëm. Mhm. mais léegi nu ñuy def pour ànd ak moom dem ndax papa du ko bàyyi mu ànd ak ñun. Mhm. ñu ni mais nañ leen dem rek ñu baab papa wax ak moom. léegi ñëw nañu. alxuraan loolu da lay jàngal ñëw nañu aksi nañu dafa am lu muy xasaf mooy agsi nañ ñëw nañ seen papa. bi ñu waxee ba pare seen papa yëgul benn yamin yëgul Youssoupha ñëwul ñëw nañ xaalu. yaa baana maa laka laa taamanna ala yusuf wa inna lahu la naasixuun waa papa ñu ne dañu am problème waaw lan la waa ñun lan moo tax yow wóolu wooñu ak yuusufa te wa inna lahu la naasixuun pourtant ñun ñu ko bëgg lañu ñu koy laay biir lañu ñun dañ koy dimbali saa su ne mais seetlu nañ ni wóolu ak moom hmm. seen papa ni waaye lu fi indi wax loolu wax jooju mais ñun papa saa bu ñuy dem di fow di dem terrain di football yi wala ñuy dem ci àll bi di rëb bi wala ñuy dem di di di rawante ji mhm. yuusufa da nga koy téye doo ko bàyyi mu ànd ak ñun te papa pourtant ñun wa inna lahu la naasixuun mhm. ñun saa su ne ñu ngi koy dimbali xam nañ ni suñu rakk la mhm. ah seen papa de ah yuusufa de dafa xiiboon rek moo tax ma téye ko ñu ne ko déedéet papa dañu bëgg arsilhu maana gadan yartaay wa yalaab wa inna lahu la xaafiduun papa suba am nañu match noonu nga koy waxee. wala papa suba war nañoo dem rëbbi. ci àll bi dinañu dem sorti dañu bëgg bu subaa nga boole koog ñun ñu ànd ak moom bu ñu demee di course muy course. bu ñu demee di futbal muy football ak ñun bu ñu demee di rëbb muy rëbb ak ñun bu ñu demee di daggi mango muy dagg mango ak ñun dina sàmm te tamit dina fo ak ñun mm-hmm. xaala wax nañu seen papa pare papa jay tontu inni la yuxzinuni an tadhabu bihi man daal dina ma dina dina ma dina ma tiital dina ma jàq lool pour ngeen dem ak yusufa ànd ak moom te wa axaafu an yaakulahu diibu wa antum anhu gaafiluun man dafa am lu may ragal li may ragal mooy ngeen ànd ak moom dem till lekk ko te su boobaa da ngeen di sàggan parce que càggante gi leen di dal mooy yéen bu ngeen nekkee ci seen yu du ngeen tal dara te yuusufa xale la ba pare dafa xiibon damay tiit ngeen ànd ak moom dem di fo far tilli ñëw lekk ko te yéen du ngeen ko yëg xaalu xale yi ni ko papa la in akalahu diibu giñ nañu ko ni bu ko tilli lekkee wa nahnu usba te ñun ñu doon fukki ponkal yu tol ni ñun bokk ak moom benn bàyyi muy suñu rakk naa idan la xaasiruun papa loolu bu amee kon ñun dinañu perte ah. kon ñun ay yambar la ñuy doon. Hmm. ñun mag ñu toll ni ñun fukki ponkal. Hmm. ànd ak seen rakk dem di fo di sàggan ba tili lekk xale bi papa su boobaa ñun dinañu sàggan. Eh, alxuraanay nettali hmm. <laughs> nee na falamma bi bihi léegi nag convaincre nañu seen papa seen papa jël na yaaquba xëy nañu ànd nañu ak moom jël na yuusufa jël na yuusufa yaaquba jël na yuusufa xëy nañu bàyyi na leen ñu ànd ak moom woo na leen ni leen dem leen yuusufa àndal ak say mag ngeen dem moo tax alxuraan ni fa lamma dahabu bihi ba ñu demee ak moom wa ajmau daja nañu ni an yajaluhu fii xayabaatil jubbi ñoom ñëpp li ñu mujj d'accord mooy lan la ñu waxante woon lan la woon ay dara mooy dañ koy jël yóbbu ko yoor ko ci teen bi kon yaa ngi suivre <laughs> Karara jërëjëf wallaay jërëjëf ba ñu demee la ñu d'accordoon ca seen waxtaan wa mooy def ko ci teen bi def nañu loolu dugal nañ ko ca biir teen wa naa ilayhi suñu boroom subhaanahu wa taala nee na yuusufa li muy doon xale yëpp foofu laa koy wax yoo mm-hmm. jibril laa laa wax yu ni ko ko dawal ci yuusufa bala muy tiit nee ko latu nabbi annahum bi amrihim hada wa hum laa yashcuruun lii ñu def nii dugal la ki teen bi fii bul tiit bul jàq lii dinaa la ko soloo ab film la bu tàmbali ca fin ba dinaa leen ko soloo ñoom ñëpp li ñu def te moment boobu duñu ko yëg yuusufaa nga ca teen ba xale yi dellu nañu ci seen papa. Mhm. moo tax ma ne la ay épisode la. léegi épisode bii ban la mooy yàlla subhaanahu wa taala bàyyi na Yusufa ca teen ba léegi xale yi ñibbisi nañu ñëw nañu wa jaa'u abaahum ishaa'an yabkuun hmm. yàlla nee na dikk nañu ñoom xale yi jamonoy yu gee mooy ngoon la ñu ñëw guddi. Mhm. yabkuun ñu ngay jooy. Hmm. <laughs> ñoom ñëpp ak si. seen papa di lan la lan la lan la lu ngeen di jooy lu ngeen di jooy. xool ni gisul yuusuf ay na yuusuf ay na yuusuf inna dahab naa papa ñun dañu dem noppi leen lu jooy ana yuusufa ay na yuusuf nastabiqu dañ doon rawante wa tarakna yuusufa inda mataaina papa dañoo bàyyi yuusufa ca suñu bagaas ya faaka la wut déebo papa till moo ko lekk waaye wa maa anta bi muuminin lana wala kunna saadiqin papa xam naa ni doo ñu gëm sax même bu ñu waxee dëgg tamit xam nañ ni doo ñu gëm parce que avant nga ñu koy jox noon nga ñu dangaa ragal tilli lekk ko mm-hmm. far ñu dem yàlla dogal tilli lekk ko kon xam nañ ni doo ñu gëm ñooy tëppale si <laughs> ñëw mën a seen papa ni ah, doy na war <laughs> fekk summi nañu mbubbu yuusufa bi indaale waaw moo jël yére bi ni ko papa yére baa ngi nii am na sax téere yu ni dañoo indaale benn till dañu jàpp benn till yeew ko indaale ko mhm. papa yére yuusufa baa ngi nii seen pa fekk rey nañu benn bëy taqal yére bi deret mhm. papa yére yuusufa baa ngi nii seen papa ni leen ah yuusufa yére bii la soloon moo taq deret nii ñu ni ko waaw seen papa ni waaw ah moom yére bi fenn xotteeku wu ci de ñuy ko papa xotteeku wul waaye deret jaa ngi nii mu ni leen maa ahlama zihbu akala waladi walam yumazziq siyaabahu waay waay seen till gee lewet moom de lekk na sama doom te xottiwul yére bi till bi daa xotti yére bi teg fële door koo lekk kon ñu ni ko papa ñun xam nañ ni sax dooñu gëm waaye jàpp nañ till gi mu ngi nii seen pàppa ni indi leen till gi hmm. ñu indi till gi yeew ko mm-hmm. yaaquba comme yonent la day def mujiza mm-hmm. mu jël loxoom rek teg ci till gi yaa zib zib ni ko labbayka wa saadayka mu ne ko man ana man la mu ne ko anta nabiyullahi yaqub ndax mbooleem yonent buy dund ci jamono rab yiy dund yépp dañu lay xam yaquba daf ko teg loxo rek ni ko yaa zibu mu ne ko labbayka wa saadayka mu ne ko man ana man la mu ne ko anta wali anta nabiyullahi yaqub yow la yonent yàlla yaqub mu ne ko hal arafta waladi yusuf mu ne ko naam araftuka li anna araftuhu li annahu nabiyun hmm. xam nga sama doom Youssouf mu ne ko xam naa ko ndax moom it yonent la hmm. mu ne ko ay na hmm. anamu tilli gi ne ko man gisuma ko de ah lu la fi indi man xaw ma ko de noo def ba xale yi indi la nga ne xamoon la fi indi mu ne ko man dama déggoon ci sama maam till hmm. mu ni déggoon na ci sama maam Ibrahima mu ni képp ku sol sa dal dem doxi mbokk dañoo lay bindal tiyaaba non seulement temps bi nga def pour dox mbokk dañ koy yokk ci sa fan mhm. ma demoon seeti sama mbokkum till yu distance bi nag sori bi ma wàññi ma sonn tëdd ci benn taatu garab di nelaw xale yi yeew ma maa ngi doog a xam sax lu tax ñu yeew ma man maa ngi doog a xam mu ne ko ñu ne yaa lekk sama doom yu till gi ni ko ñun till sax lu lekk nit benn mhm. beneen bi mooy booleem rab yi nga xam ni dañuy lekk nit duñu lekk yonent te sa doom yonent la mhm. yow xam nga ko Yaaqub yaquba ni leen bàyyi leen tilli gi ñu bàyyi tilli gi mu dem day waay kon dox mbokk waay baax na de yow bi may seetaan gis nga jàngat boobu mhm. dox mbokk baax na mhm. kon moo tax alquran nii ñëw nañu wa jaa'u abaahum ishaan yabkuuna qaalu ya abaana inna dahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataa'ina mhm. fa wa ma anta bi muminin lana walaw kunna saadiqin yàlla nee na indi nañu ala qamisihi ci yére bi bi damin kasibin ànd ak deret yoo xam ne dereti fen la ndax dañoo rey bëy takkal ko ci ni deretu yuusufa la yuusufa yaaquba nag bi wax ji àggee ba àgg mu ni leen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun yéen daal seen bakkan rafetal na leen dara mhm. ngeen def loolu amul benn problème def ngeen lu leen neex waxoon naa leen ko ngeen fexeel ngeen sama doom daal ñëw di tappale mais xam ngeen di tilli gi rayu lekku ko ndax dégg ngeen ni tilli gi wax nanguwu leen a wax fu ngeen dugal Yuusufa nag mais amul problème naa muñ muñ ko rafet yàlla lay dimbalikoo ci li ngeen def mm. chérif kon muñ a ngi noonu mm-hmm. yaa ayyuha alladina amanu sbiru wa saabiru wa rabitu wattaqu llaha laallakum tuflihun yàlla nee na muñ leen dee leen dimbalikoo muñ istainu bi sabri wa salaa gis nga ba muy wax ibrahim yonent yàlla ismaila mm-hmm. nee na wa kaana yaamuru ahlahu bi salaati daan na digal njabootam julli mm-hmm. waaye gis nga fii bi muy wax yaquba yaquba nee na fa sabrun jamil muñ gu rafet Mm. wallahu almustaanu ala ma tasifuun mm. yàlla laay dimbalikoo ci li nga xamante ni moom ngeen di melal mm. ay dara bismillah kon nag li ñu wax euh, fasbiru isbiru sabran jabilan mm-hmm. muñ leen muñ bu rafet mooy muñ bu ànd ak dignité mm-hmm. kon yaquba loolu la muñ mm-hmm. kon fa tabarakallahu xale yi am na lu ñu jëf yaquba xam nañ ni ay tappale lañ doon def te won na leen di da ngeen di tappale tafsir abdourahman bisimilah mun nga yeggale waat tuuti kon léegi yàlla bàyyiwaat na yaaquuba ak ay doomam mhm. muy xale ya dellu na ca teen ba ca yuusufa wa jaat sayaaratun fa arsalu waaridahum fa adlaa wa beneen épisode ubbi na waaw léegi yuusufaa nga teen ba mhm. yàlla nee na xale yi la la yahuuda waxoon ni yaltaqitu baadu sayaara gis nga mhm. sayaara boobu mooy ñëwaat wa jaat sayaara am na benn caravane bu fa jaar ñu toog ba mu yàgg daal di yónni kenn ni ko demal ci teen bële nga rootal ñu ndox ñu naan mhm. kenn ci ñoom dem di root bi mu dugalee goj bi mhm. dugal baag bi jukki bi mu dugalee goj bi yuusufa téye ci goj bi mhm. waa ji jukki naan waaw man sama baag bi diis na de di jukki di jukki di jukki ba muy tolloog pind bi mu xool gis mu doon ab xale mu jukki ba mu génn xool xale bi mu rafet lool moom la yàlla ni caravane bi dikk na yoor nañu yabal nañu aji roor ku leen rootal ndoxu naan mhm. kooku yoor na baat bi ci biir teen bi fa adla dalwa waaye ba mu ko génnee xaala nee na yaa busra hada gulaam mhm. ndax gaa yaa nga fële toog mhm. ku doon root wut ndox am nit <laughs> bi mu nit ki mu am mu xool ko mu rafet lool dégg nga ni nga waxee taaru Yuusufa mm. bi mu génnee rek dafa yuuxu yaa busraay ey eh, bég naa waay gaa yi hada xulaam ndox ngeen ma yónni woon am naa xale yaawul mun a daala <laughs> yaawul mun a daala a taajub day ay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay kontaan waay man de ndox laa doon wut ab xale laam xale bu rafet a rafet a rafet a rafet moo génn ci teen bi te li gën a garaaw mooy xale bi dara dalu ko hada xulaam kii ab xale la wa asarruhu bidaa suñu boroom subhaanahu wa taala nee na ñoom ñooñu nga xam ni ñooy caravane bi yónni woon kii yi nëbb nañu ko def ko mu doon benn marchandise def nañ ko marchandise. parce que ñoom dañu ni kii ab jaam la bu doon daw dugg fii di làqatu. léegi nag comme ñun ñoo ko for nañu ko jaay. bu ñu ko lu ñu ci am rek nañ ko jaay ñu séddoo suñu xaalis bàyyi mu dem. parce que kii moom bu ñu koy boo suñu kër yi dafay ne di daw yu mel noonu. mooy wa asarruhu bidaa nëbb nañ ko def ko mu doon ab marchandise yàlla nee na wallahu alimun bi ma yaamaluun suñu boroom xam na la ñuy def. léegi nag wa charawhu ga nga waxoon. mooy jënd nañu yuusufa waaye bi samanin baxsin ci njëkk bu ndaw dañ ko wanteer xam nga dañ ko jaayee ah. vingt dinaar vingt bu doon ni tey la man nga wax vingt euros wala wala vingt mille francs euh, euh, vingt mille francs sax bari na bari na waaw vingt euros waaw moom vingt wala nga ni vingt dollars dix mille francs moom lañ ko jaayee <laughs> <laughs> moom lañ ko jaayee mooy vil prix wa sharawhu bi samanin baxsin darahima maaduda wa kaanu fihi min azahidin mhm. ndaxte ñoom ñu nga koy làqatu ngir lan bëgguñu ñu xam ni kii kat ci teen bi lañ ko génnee wala yooyu ñoom dañu jàpp ni ab jaam la bu doon daw ñu patam-patamee ko jaay ko mhm. léegi nag yuusufa jaay nañu ko jënd nañ ko ñu ngi ko jënde ci misaal cent franc la ñu jënde Yuusufa te moo woon ci seetu xool boppam naan maa rafet ku ma jënd jënd ko rafet ba yàgg mu ne kenn amul sama njëkk ku ma jënd di nga ma jënde lu cher ba yàgg mu ne man kenn mënumaa jënd yomb naa jaay cher naa te kenn amul sama njëkk ndax ni ma taaroo mm-hmm. yàlla ni ko nag doo dara nit rek nga wàcceel sa bopp looloo waral ñu jaay ko cent franc lu ñu amoon ci waxtu jeex na yow mii seetaan émission bii di tam xarit mhm. incha allahu yuusufa jaay nañu ko ki ko jënd kan la nu mu nekkee ca kër ga foofu la émission bi tàmbalee incha allah kon xaali Ousmane subak jàmm incha allah ñu yeggaliwaat loolu incha allah incha allah di la jotal nuyoo Adja Fadima Tall mhm. bint Thierno Muntaka Ahmed Muntaka Cheikh Alhaaji Umarul Fouti muy jigéen ju mën góor mhm. jigéen ju tedd jigéen ju baax di suñu yaay dëkk ci Liberté 5 fa tabarakallahu di nit ku baax ku yàlla baaxal bu doon góor tey mën na toog ci xilaafa gi fa tabarakallahu ndax sellam ndax jubam ndax xam-xamam waaye yiwam fa tabarakallahu kon nag ñu ngi ñaanal yàlla yaa ak ay rakkam yëpp ñuy ñaan yàlla yal na yàlla fekk seen fan yàlla may leen seen barke baay bi jaa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhimu sibtayni a'laami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fa hum saadaatuna ahlul makaarimi wan nada kon xaali Ousmane suba ak jàmm incha allah waaye bisu ashura muy dimanche bi incha allah képp kuy jullit mhm. na nga jàkkaarloo ak sa télé midi pile incha allah incha allah yor sa kurus mhm. ñuy defandoo ñaan gi ñun ñi toog ci plateau bi ak yow mi jàkkaarloog sa télé ñooy àndandoo di ñaanandoo ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul jërëjëf xaalis suba allah kon ba suba ba suba jàmm 22h jërëjëf incha allah